beneen président bi ñëw. xam nga xam loolu la parce que waxam il def ko mesure comme ay mathématiques. gis nga euh, si biir waxam dafa am ñetti volet xam nga dañoo ne euh, dafa am doom buy tiitaroo baayam am doom bi nga xam ne baayam da koy tiitaroo ak doom buy tiital baayam. dafa am moment bi nga xam ne ci biir waxam. Hmm. di nga dégg ne am na un temps où président bi mi ngi doon tiitaroo Sénégal. ndax liggéey yi mu defar ak yu mu réaliser yëpp Sénégal di ko tiitaroo mais wax bi ba mu daanu fu mu ne ñëpp a tiit kon dafa tiital Sénégal yëpp léegi nag ñu ngi wax affaire libération Ousmane Sonko. waay mais est Macky Sall et Sonko. Mm-hmm. mais problème bi fu mu nekk nii c' est Macky Sall et le Sénégal. c'est problème bi tey bu ñu doon libéré Ousmane Sonko Diomaye Faye ñëpp. Mm. mais teewul Macky Sall dafa tegul problème son problème c' est pas entre moom. te ku posé problème boobu. Ah il a un posé un problème. Ah entre moom ak sénégalais yi. bu leen libéré woon yëpp yaa yaa ce problème là qui est mooy dafa jël ay décision bi nga xamee ni moom ba mu koy jël en âme en conscience xam na fu mu jëm gis nga dialogue bii ñuy wax la la dënee ah xanaa ñu am mbetteel bu rafet de mais Macky Sall xam na jab dialogue dialogue bi fu muy aboutir. Ah, gis nga dafa teg oui. xoolal xool nga bëgg lii. maanaam ñoom waajaloon nañu. te xel la yëpp xoolal ak mardi formalité rek. mais mais mooy xoolal ñi mu ñi mu dugal ci biir dialogue bi. waaw ah, ñan. imaam bi dañu dem élection. <laughs> les religieux on parle de date. ku mu wax non non da ko dégg mun ne religieux. non non dafa xoolal ñi mu dugal. waaye non loolu loolu xoolal. xam nga lu mu. foofu les dix neuf. les dix neuf qualifiés. waaw ñoo la doon xëcc. les religieux font part de la. gis nga non ñi mu dugal. ñi mu dugal mais mais est-ce que logique. que par exemple dans ça euh, les candidats yi nga xam ne le conseil constitutionnel a validé leur candidature ils sont déjà hmm. après nga bëgg woo les candidats yi nga xamante ni ils sont pas passés les candidats qui sont pas passés logique pour le il voudrait passer est-ce que du mooy ñaari poñ bi ñu ma ne la xam na dialogue bi lu muy lu muy jur ah. parce que ni mu acteurs yi mu teg mënuñu juboo parce que ñi nga xamee ni ñoom bokkatuñu boo ci boolee yow nga xam ñoom seen yéene mooy ñu bokk affaire u dat du leen fa indi affaire lañ fay bokkee lañ fay indi kon boo moytu coow bi day yóbbu yeneen. ku mel ni moom dat du ko li jënd. ñëw du ko fa indi. <laughs> te dañ fay teew. waa APR waa APR waa APR ñi nga xamee ne ñoom aussi. Amadou Ba arrangé wu leen. et euh, amuñu yaakaar ci dinañu gagné. Hmm. fu mu ne nii affaire dat du leen ara du du leen fa indi. mooy que ni donc man amoon mon avis hmm. moom déjà xam na affaire bi lu muy juru ba pare mu teg résolution yi nga xamee ne situation bu amee jubóowuñu gisoo yëpp wax na ba mois de juin. Hmm. avant kii bi il a lépp laa di. avant hivernage mais mais Thiam Thiam doguma la. <laughs> Euh, dafa am benn euh, politicien français moom lañ koy féetewee. al Pasqua. quand on est emmerdé par il faut créer une affaire dans l'affaire dans le problème il a créé un problème. du problème dans le problème. très intelligent. et dafa xam Sénégal xam nga ñaar ñoo ko am waa waa waa si ñi nekk ca àll ba ca ca ca tool ya xam ñoom ci la la ñuy wax mooy yàlla baax na loolu mooy seen tab ñi nekk Dakar na xam lan mooy lan mooy seen kii mooy garaawul waay gis ab garaawul waay rek lay mujj non garaawul nañu dañu gars yi voilà pas une analyse je fais une synthèse synthèse mooy lan quand on écoute li mu wax le 2 avril ba ne peut-être que sax ci nawet bi il faut ñu def élection avant nawet bi. waaw wala effectivement l'article 36 va rentrer mais c'est mais c'est c'est clair c'est clair et net maintenant bu fekkee nag nit ñi dañu bëgg a kii di wax kii di wax mais on s'en sortira te gis nga il faut ñu éviter benn affaire am na lu wax kii di wax kii di wax caam am na wax léegi mais c'est même pas une impasse c'est un blocus total xam nga le problème mooy gën ne gis nga caam euh, li mu wax léegi nee na ñi nekk ci àll bi yàlla baax na ñi nekk Dakar garaawul. est-ce qu'il n'est pas lieu de se poser la question qu'un peuple n'a de dirigeant qu'il mérite, de par sa façon d'être Et sa passivité. C'est pour ça que moi, une question, est une question nationale. léegi nag eh, euh, dafa am point bu Ayoba wax euh, kii euh, dafa ne Macky dafay demander pardon man dégg man j'ai pas eu cette lecture là mhm. moi je li ma gis mooy dafay dafay pardon pour baal leen pour bal leen yéen mais c' est pas lui ou son camp qui demande. maanaam yëgul ni moom am na fu mu. tooñee ba nekk ci. voilà baalu parce que gis nga expliqué na affaire amnistie ak grâce. yëpp il a pris la peine de l' expliquer. ba pare nag daal di ne euh, taxaw pare nañu pour baal leen ak yooyu yooyu la yooyu la indi léegi rek gis nga jàngat bi gis nga les notes yi ta talaa am na lu mu ci wax. mais mag yi ñetti point rek la doon jéem a validé. ñett waaw. ci biir euh, li mu doon waxtaanee keroog dafa doon wane ni. li conseil constitutionnel wax moom parewul pour appliquer ko parce que ñoom dañ ko ne choisiral date moom mu oote dialogue waa conseil constitutionnel wax ko bu bu oote hmm. dañ ko dem mu choisir date moom mu oto dialogue hmm. waa bu ko nee les les autorités compétente li mais ko conseil waxee. mais moom cest à gis nga gis nga mbir bi bu mujj gis nga mbir bi bu cons foofu nag la waroon oo nag yi nga xam ne ñoom les les les dix-neuf bi mu vite mën na nag sax par téléphone il n'a même pas besoin de truc deuxième chose mooy que ni il voulait montrer que ni valider le fait que mu war fee toog après le deux parce que dialogue bi bu ci génnee. day fay légitimer loolu moo parce que jubóowu leen. parce wax na ko nee ah toog leen fii di xoole rek ba ngeen ci na ay forces organisées nga xam ne ñu mais force organisée c'est lui. du kanam on verra on verra mais force elle est organisée il y a il y a le truc vous n'êtes pas d'accord et puis je vais dérouler jusqu'à ce que ngeen di d'accord ba pare kay légitimer parce que loolu la doon wax képp nee na euh, de toute façon le le la la chaise bi mënul euh, ñu mënul toog sans président alors je serai forcé d'être là jusqu'à ce <laughs> que voilà tu vois <laughs> l'a dit et boppe dafay xoolal scénariser affaire bi dafay scénariser ba ba après voilà ah oui oui mais daf koy scénariser ba après ñu nekk ci condition boobu après dañ naan ah moo fi sës il faut mu toog parce que moom mooy président bi mënuñu toog san président troisième chose bi mooy que ni bëgg loi d'amnistie bi. Ah. Mmh. bëgg na ko imposer aussi ci biir wax bi ci ñett yooyu man si sama dégg-dégg. Mmh. keroog réunion bi ak journaliste yi message boobu la bëggoon jàllale. Mmh. te moom il a pris la peine de l'expliquer clairement. non il a été très pédagogique. oui ci biir loolu parenthèse la comprendre nga ñi xaxar sa directeur su ma ko mënee waxee noonu. lu fa doon cëram. oui lu fa doon bon non non non il n'était pas non non mais non non mais sur la forme sur la forme. non non non non non président Macky Sall ngeen di toog fii ngeen ni ngeen koy critique dafa am njaboot léegi waaw alors kon dànk rek taala ñi léegi mooy kon njiit yi kenn du wax kenn du wax li ñuy def waxoon na njiit yi kenn dama li koy laaj li nga koy laaj ku la ko wax li nga koy laaj ku la ko wax xam nga la lay wax dara leerul Racine c'est un travailleur loolu mu liggéey la ko lañ ko présenté parce que Macky face à la presse waaw mais man. waaw ñu ko considéré comme un journaliste waru man man mi sama mag la waaye waru foon toog. man journaliste man man man je ne voyais plus mon directeur je voyais un direct un journaliste. voilà voilà merci beaucoup parce que ma fa directeur. journaliste laa moi je voyais plutôt quelqu'un qui fait de la propagande. tëj naa parenthèse bi. man sama mag la moi je le voyais surtout faire de la propagande. oui oui d'accord mais man journaliste laa doon def pour que les choses soient civilisées. ban modérateur ban civilisé. waaw Thiam. da ngaa bëgg a mais Thiam RTS ñaata journaliste may ma RTS ñaata jour non xaaral may ma imam ma. ala RTS non imam may ma rek. Mariam imam waxuma lool dama ne ala RTS y' a combien de journalistes compétents. ñëpp ay naanaan la xaara Racine Talla directeur général la. directeur général ah, am na ñu nekk desk politique am na ñeneen ñu fa nekk Racine Talla musul génn pour faire de la communication à ce niveau. mais peut-être que l'heure est grave. parce que Sénégal dafa bëgg a dugal. mais lu sérieux la ci man. c'est-à-dire Racine bu naawee tey bu naawee tey ma naaw tey. mais cest à bu ñuy waxtaan ci réew mi amul papa amul mag amul nijaay. waaw comprendre nga. tey bi ñu ko joxee RTS. war nga fi keroog sur le plan liggéey mu def entraîné mu def saa on le reconnaît mais tey texte Sénégal sénéral dafa wax débat yi ñuy posé nii RTS moo ci waroon jiitu. Hmm. Yaxam Mbaye Le Soleil. si Le Soleil est devenu même journal de propagande c'est-à-dire mën nañoo changer Soleil bi sax ñu def ko bopp fas su leen neexee. <laughs> d'accord ñu dem toog foofu. trier au volet cadré lan la fay. débat bu subi sa mooy la d'accord alors. Lamine yeggali parenthèse la ah, woon rek. waaw Mamadou Lamine. mais euh, tëjaat naa parenthèse bi comme. tontu yaa ko ubbi rek ma dugg fa <laughs> yaa gën a xam ne boo ko laajee du. gis nga tontu boobu kii ko yor. kan ci mais kee yoru ko. yor Macky Sall <laughs> eh. lépp ñëpp la yore. loolu scénario la bu ñu organiser. lépp ñëpp bokkut ak bi lépp ñëpp la yore bokkut ak. kii moom pourtant nag taalaa tamit lépp ñëpp la yor. déedéet déedéet te kii moom bokkul waaye dafa jiite lépp ñëpp. kii moom bokkul ci d'accord alors yeggali oui. c'est pour dire ni ak oui c'est pour dire ni man tu sais euh, première question bi deuxième question bañ ko bañ ko bañ ko ko posé rek. Mm-hmm. là on faisait allusion à la date. ba mu tontoo man ci laa pare ci émission ci ci waxtaan bi. parce que loolu la ci intéressant parce que la lañ doon xaar. mais il a va pas donner de date aujourd'hui ci deuxième question bi. oui boo xoolee de ba dégluwaatee. bien sûr donc problème bi mooy moom dañ ko jox euh, conseil constitutionnel. Hmm. Euh, ba mu koy naan ko choisir une parce que daf ko ne choisis une date. Hmm. loolu la ko wax. dans les meilleurs délais. <laughs> xoolal xoolal politiciens wax waxuma am politique yi politiciens yi ñuy ŋawti ŋawti di jéem a expliquer lan mooy meilleur délai. <laughs> est-ce que yaa ngi comprendre. te boo seetloo gis nga bu ñu naree euh, def def dara boo seet dafa am ñu ñuy yónni.